Euh, ce qui se passe dans la sous-région maanaam tey jii ni CEDEAO dañu jox ultimatum euh, waa euh, ku ñu def coup d'état bi fële ca Niger te Sénégal nee nañu dañoo nar a bokk ci ñi nga xam ñoo nar a attaquer Niger ndax jàpp nga ne c'est une bonne décision une bonne chose. dañ fi yónnee ay néew yoo xam ne seen yoon warul woon nekk ci loolu. en fait nag vous êtes c'est une solidarité des états de la CEDEAO. Mm-hmm. charte yi moo ko moo ko tënk charte yi moo ko mais charte CEDEAO yi nañ ko xoolaat. Mm-hmm. CEDEAO du CEDEAO des chefs d'État. ça c'est ça c'est une action des chefs d'État man CEDEAO xam nga fan laa leen doon xaar suñu doom yi di dee si géej gi. Mhm. ñu ñëw ñoom CEDEAO. ak les coups d'État institutionnels. waroo bokk nga bokk forcé yooyu aussi yu war a wax la. dama ne seen mécanisme yi bu ñu ko équilibré woon kon dañ doon am dañ doon am doole ba coup d'État du am. Mhm. xam nga coup d'État yi lan moo koy am. fragiliser wu institution suñu dëkk yi pauvreté yi nekk suñu dëkk yi mal gouvernance yi nekk suñu dëkk yi loolu mooy indi coup d'état yenn action politique yi nga xam ne dafa radical contre un militaire gis loolu di ko dund ay affaire personnelle affaire familiale CEDEAO xam nga fan laa ko doon xaare mhm. mu créer benn sommet CEDEAO jàkkaarloo ak Schengen ak Union européenne par rapport ak immigration clandestine bi ñëw nee leen ginnaaw yéen communauté ngeen ñun tamit communauté la ñu kaay leen ñu toog ñu wax suñu doom yi nan la ñu demee seen doom yi nan la ñu ñëwee suñu richesse ni ngeen koy kiiwee ñu partagé ko se là où j'attendais CEDEAO c'est pas où CEDEAO mm-hmm. répression ay jël ay militaire dem attaque ji beneen bu ñu duggee ni bu ñu duggee Niger mm-hmm. dañ fi indi ay cadavre yoo xam ne xara xaaruñu ko woon